شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain awnaka yaa muayinu wa bika nastain ñu fas yéene dellu siwaat ci tàgg sëriñ Tuubaa ci xasiday wolof lépp di ko ci delloo njukkal rawatina di ci waajal bis bu bii di màggalu safar bismillahi rahmaani ma jóg dellu siwaat man baas di way ndaam ci ay ndamam te sàlloo biral tey kañ jalooreem ci ay wayiin ma jóg del man baas di way ndaam ci ay ndamam te sàlloo biral tey kañ jalooreem ci ay wayiin kadem delsi andaaley jaloorem te bokkuwul xanaa kañ ko ak sargal ko ciw tagg war na leen safar saf na sàppak ndam te sooful ku yàlla ñor ayaa ummatil islaami ndam laa ngi sant leen safar sanda sa pan ndam te sooful ku yàlla ñor ayaa ummatal islaami ndam laa ngi sant leen ndamal waata dañ koy feete bis bii bu dikkatee na ngeen maase ñëw sargal ko soo daan wuy si leen safar gay ndamul islaamu ngir neesu génnuloon ñu nasraanu tey soo daanu xaadim goreel na leen te nasraan yi ak noonam ya seen koote tas na tey te wooteb sëriñ tubaab yi day wéy ba réewi siin te nasraan ya ak noonam ya seen koote tas na tey te wooteb sëriñ Tuubaa bi day wéy ba réewi siin atum talsisin ak tey njafal gaa ngi fii birex jëneer baa ngi ca yàlla leeram yi wër na leen te xabrum bi am til kartanu nëbb ay ndamam nde suuf mën la war leeram gi yàlla ak yonent di seen atum wam sisin ak léegi daa mel ni fa duwul ngir rek kartanug ruuxam moo ndax loolu yéemu leen biléb xej ji mëslil seen ca suuf ak ca péyi kaw dafay xejj buñ xejjal ca kër yàlla ak lëmin bi lépp xejj mëstil seen ca péy ca suuf ca péyi kaw dafay xejj buñ xejjal ca kër yàlla ak lëmin dogon daam du nooy xam yàlla duñ xeñtu sax xetam te duñ muucu caf kom kay te duñ mucc benn noonu bu Afrique amul woon tey lu dul daam mu doy ko ndam ndemoo gën jëm ak te gën mbell ak leneen dogon daam ñu juuyoog sunna tey topp ay bidaa te moo tee ñu gëx sunu maam yee ñuy daw ba dekki ceen sëriñ bee dundal xuraanu ñuy jàng tey zikar dogoon moom ñu mel ni saa di jëf yooyu lay jëfin sëriñ bee fi sampaat ngir yi moo tee ba wir du fay sëriñ saa ngi sañ say daagu tey kaala woo ko teen sëriñ bu ferangoo kaala tey war na lay gërëm nde boo summi woon suumuur ga kon kaala yépp neen te koo gis ñu koy santoo ko wormaal sa yëf la yor dogoon moom ñu delloo buum ca booy booy ba nangu leen te yaa soppi ko dam wuur ya daa gaddu ay tëndën mu dee teeñ ñu lay santoo karaamal ni buri siin teneegum ma yooy yaa soppi seen paliya dag ya xëy di dar yibra faal saadix ba yaa tax mu soppi leen ba tax doomi wuur yaa ngi di ay donk yuy taxan te koy sàkketal njëndéem ya fu mu soxla yónni leen te moo farka ñaanuk doomi soxna lu dig ñu nangoo woyof lul daam ba suy julli jiite leen ñu aj kàggu yaag mboolem sajaada ak lu di kurus te na séenéroo jébbal ko xëy soppi aw doxiin mu faf wulli mboolem xol ya laabal ko bañ ne cëy mu doy leeni leer toftal ca mbooloo ne dellu leen ba tey jii xuddaamul insi siwal jinni ñépp a jóg di booloo di dara dongoom yi fun jëm ñu topp leen sëriñ bee waral làmbaay ñu xëy dëddu seeni pal tanoor saay mu sampa yi yeneen pal yu dootu neen te moo fëq ndëndam ceddoo te moo fuq ndëndam ceddoo xëy nangu seeni dak ñu tàggoog ma yàlla fab dënd jëf jël ba peyi diin te moo julliloo saafaandu yaag ndud yi ak sereen fa kër kumbandoo fen juuf ki lay xóotu tàggatiin sëriñ bee toxal raagee fi daa xew ca suufi la mu joor saanu ngëm daam saan ya daanoo ki ngën ni fóon mu joor saanu ngëm daam saan ya daanoo ki ngën ni fóon gësam na firaa yow diine firfir ja jëm na kaw yoneen reena iblis jooy ewaay gaa yi bakku leen te uppaat na taala diine bam jàpp muy jubal ña seytaane sankun démb sunu waa ji sanku leen mu kàbbar ca kéewub diine ub lambi gaa yi kaw te ub lambi suuf xëy def rijaal yépp aw jigéen te misraa ngi koy raamal ba Makka ak Madina sax di barkeelu ci ñaanam ngir rek yàlla sàmm leen mayuk sax ba seen cër ya lépp pëng ci ay mayam ku xëy teggi daam doo seeru muy jot njariñ feneen gërëm loona jiilaay neeki saasil ci ak dotom gërëm loo na jiilaane ki saa sel ak ndoxam gërëm loo abul abbas ak mbër yi jiitu woon gërëm loo rasulullah yi faf yéeg ca ñoñ badar te yor akbara ridwaani wu arshi ciw te làmboo nga cef koog yàlla yaa bondi aw bonam kuroo xam sa jul day xam ne yaa daq bon yin te sax jooxa nampal gaa yu xiif yàlla rekk nañ ñalaa njaablu tey xam nañ ne yaa daq ñépp ween jaboot nga ju nee xam soow te doo mburle senn saa feral yooyu le woo xiibon le woo tëdde wooyu nda feen tabaaraka rabbul arshi ndaw ñépp kiilu nañ ba tuutu ni be wàccel te lalloo ji àlliyin ba woo lëf ca péyub yàlla may yépp wàcc nañ gannaaw bakku woo toogal nu bakku la tagg leen amal ngay kuréel xam-xam ba teg leen ci yoonu jëf nga jël xam-xamub lislaamu taalif ne jàng leen fa doon ngay faqiir jox leen i am am ba ñépp rët ñu foofu xëy di faj ay aajo fuñ xaw ñu fekki leen teral ngay jirim ak baayoo bañ fàtte seeni ndey ak i baay sanal leen seeni kem xëy na seetu leen fajal ngay kuréel raggug yaram faj fi raggi xol loroo kenn yàqu suuf si yaa sell aw doxiin sarax nu defar yokkal nu ay ndamte may jox nu may yu dul dog ma daa dunyaa wa oxraa filig feneen sarax nu defar yokkal nu ay ndamte jox nu may yu dul dog ma daa dunyaa wa oxraa filig feneen ayaa xaadimal muxtaari yaa muslihal wara defar noo defar ban sotti dab gaa yi romb leen faral noppi yow baas foofu aw làkk attanul jaloorey sëriñ Tuubaa xajul faw ci wayin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim salaatu alladi fi kulli shahrin wa fi safar hamani ala mahin mahal habsa wa safar falaahi bi kawni abd rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada mugnin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqihi